jaajëf jaajëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di wax rek auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala nabil karim sayidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi sawirit waani wa tamkin bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaare kenn ku nekk turam ak santam di leen wax ne tey nag ñoo ngi fii ci Brescia ci événement bu am solo boo xam ne moo fi dajale communauté sénégalaise yi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir réew mi ak bi ñenn ñi jóge ci ay dëkk ak région yu sori fu mel ne waa Veneto ak fu mel ne it ñi nga xamante ne si mooy waa Lombardia bi nga xam ne ci lay nekk ak ñenn ci Emilia Romagna ak ñenn ñi nga xam ne it ñi ngi nekk fi ñuy wax Piemonte ngir lan ngir dundal si bis bi nga xam ne Cheikh Mamadou Mourtada al Mujahidul Akbar moo ko fi jëkkoon a amal ngir yaatal lislaam ngir yaatal njàngalem sëñ Touba ndax Cheikh Mamadou Murtada sëriñ Touba dafa waxoon ne kuy guddub tànk lay doon ci réew yi nga xam ne mooy bitim réew loolu ñëpp gis nañ ko te jéegoom yooyu du lenn lu dul dox ngir xam xamle sëñ Touba foo boo bu mu ko daataan def nag fekk na ki nga xam ne mooy sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma tàllal ay daayira ba wax ne Serigne Touba dana daj àddina ni muy daje àddina mooy fépp fu daayira Serigne Touba yi nekk yoonu Serigne Touba dana fa àgg sëñ Mourtala bi muy ñëw ngir di yàkkali njàngalem sëñ tubaa mi daa fekk daayira yi lalu ba noppi lim bëgg lépp ñu mën ko cee jaarale te mooy taxawal fi ay barab yoo xam ne dañ koy jëmmal tudde ko barabub lislaam muy lu mel na kër yii nga xam ne tey ñëpp gis nañu résultat yi première kër gi nga xam ne moom la njëkk am mooy kër gi nga xam ne mooy fii ñuy àddoo tey muy Pontevico ci Brescia mu ñëw fi ubbi si ko ànd ak mbégte ak njabootu Serigne Touba gépp bi nga xamee ne suñu borom dogal na nag mu ñëw ubbi si ñëwaat na fi lu man ñetti at yàlla dogal bi ñu àggee 2004 2004 suñu borom dogal mu wujj suñu borom taawam bii fi nekk nag. di sëñ Mamor ñëw tegaat jéego yooyu seq yaat ay jéego yu dëgër teg ko ci jéego yi Cheikh Mamadou Mourtada yi ba gis ngeen fi mu toll fi mu yóbbu liggéeyu Serigne Touba bi sagal na bépp julit waaye na seulement sagal na bépp murit képp kuy am murit te xam-xam ñor la ndamal sëñ Touba ñor la ndonal sëñ Touba ñor la tey bëgg nga tey ci sëñ Mamor bi mu nekk nit ku am fit. nekk nit ku am volontaire nekk nit ku ñeme responsabilité te di ko jël gis ngeen ne tey sëñ Mourtada Mbacke fu mu bàyyi woon daara yi bu doon fukki daara la fi taxawal ci exemple sëñ Maam Mor yóbbu na ko tey ba mi ngi ci soixante quelque daara yuñ modernisé yoo xam ne lépp moo fay am dangay jàngal xuraan da ngay jàmb xam-xam dangay jàng métier dangay yaru te loolu rek mooy sëñ Touba li ko fi taxaw na ñëw mooy jàng ak jàngale. moo tax tukkeem beeg lim doon def lépp muy nuru ay karaama da koo teg ci sunna sunante bi sallallahu taala ngir yaatal diine ji ndax moo ne lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhul xarra wa inni ahmadu loolu ñëpp gis nañ ne tey pàcc bu yaatu di reen bu jan di reen bu dëgër di fondation bu xóot moom la sëriñ Mamor mii représenté. kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te taxawaay bii mu taxaw ci yoonu murit sëriñ Touba tuddoon na ko démb sëriñ Touba daana wax ne maa ngi leen di wax ne ëllëg ñaar danañ na gàññi bari lool lenn làqu nëbb lool da ngeen dem ëllëg ba xam-xam ne gàññi ab yar réer bu boobaa nag dara du seen dëgër lay dara du seen ndimbal dara du seen làqukaay lu dul ngeen sax ci ak taalibe sax ci ak taalibe bañ koo yamaleeg dara te bu boobaa it képp ko amuk taalibe na ko yóbbu ba ci sa bëñ ba ca rog nga denc ko ca te xam na lañuy ñuy wax ñoggati dana ñëw dugal baaraamam ci sa biir gémmiñ ba lamb ko ba daj ko jàpp ko ne ko bu xeet génnee ko sëñ Tuubaa nag boobaa taalibe dana la rëcc duutoo ci def sa dara bu boobaa nag la ma lay digal na ngeen sax ci jàng alxuraan alxuraan de su ko jàngee ci mbedd mi dañ koy wutal barab muy lii sëñ Mamor di def. wutal ko barab ni Cheikh Mouhamadou Moutala waajuram ba def wutal ko barab nii nga xamante ne si ni la sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké taxawale université bii ngeen teg te jàng xasida ndax mooy tax nga xam sëñ Touba boo jàngee xasida yi surtout xasida yi xam-xam yi da nga xam li ñuy digle xam li ñuy tere nee na tañ teg ci nag di fonk mag ñi ak ñii nga xam ne la fi bàyyi ñu fi bàyyi mooy yan mooy surriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyal Mustafa taj taxit nee na bu boobaa sëñ tubaay yi danañ na gàññi ñëw fi nii ma fi jëwee ngeen di kër kër yi dem di ma wër te bu boobaa danaa jafee gis te sëñ Touba yooyu danañ fi bari bari waay goo xamee nekk nii fu ngeen ma ca lamb bu ngeen ma lamb ci sëñ Touba yooyu da ma daj bu ngeen ma lamb ci sëñ Touba yi da ngeen ma daj waaye bu boobaa it danaa am lu ma leen defal mooy na ngeen toog fi man di tibbe ci man di sotti ci man danaa leen defal bu ngeen di tibbe ci man fi ngeen di tibbe du jeex. danaa leen defal bu ngeen di sotti it du fees te lépp lu waay tibbit tibbee ko ci man yow rek lay ñeel waaye danaa la ko defal noo xam ne bu yàqu du sànku tey ak ëllëg su ngeen saxee ci ñaar yii ma sax ci ñaar yii kon loolu mooy ubbite yi nga xam ne pour jox solo bis bii ak jàpp gi ñu ci war a jàpp ak coono yi ñu war a jàngat ak yitte yi ñu war a yitte def moo tax ñu ubbee noonu. kon duñ def rek lu dul continuer suñu reportage bàyyi leen ñu seetaan li ci am ci dund ak yéen événement bi ba kenn ku nekk fa nga nekk nga mën ko suivre wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh يا مالك الملك